man Mouhamed Gueye ndongal suñ mun suñ suñ Fallou moom suñ Basiru barab bi Daaru Minam Couture waa kër suñ Basiru mooy waa kër Serigne Fallou Couture waaw nekk Touba marché Occasion tabaski gi moom kenn ko ne xam na ne moom day mag waaye yàlla dogoon na ne ren moom dañ ci am tawfeex ndax dañ ko teel a commencé wax dëgg yàlla clients yi teel nañoo initier ñëw ñu teel nañ cee jublu ba fi mu toll wax dëgg yàlla moom ñu ngi ci am xel mu dal bu baax a baax sant nañ bu baax moom événement bi waaw dund nañ ko ci jàmm ak salaam la parce que tey ren moom client yi teel noo indi seen i ñëw tey moom dimbali nañ ñu bu baax a baax a baax a baax ba tax na affaire yi moom ren xam naa yu bare bëree bëri dina man a jàppandi daal par rapport ak daaw nga xam ni dañ koy dañuy bàyyi ba dernier moment ñu koy doog indi nit ñi daal léegi ñuy bëgg a yeewu ci événement quoi ndax parce que teel a indi ñëw yi teel a am ñaw yu baax moo gën quoi nga bàyyi ba dernier moment ngay indi say ñëw doo am ñëw bu baax xam am ak problème tailleur bi loolu daanaka ñooñu ko daan teg waaye léegi si mu yeewoo na léegi dañuy teel a indi seen i ñooñ teel leen a ñawal teel a noppalu ju daal. barab bi baax yaay Couture moom barab bi ñu ngi ko tuddee sunu yaay sopp Serigne Fallou waaw. sant yàlla rek événement bi moom comme ni ñu ko daan dundee rek noonu la kon ne di ko dundee comme noonu mu ànd ak mbégte lool waaw noonu daal la ñuy continuer di ko dundee mu waaw. Mhm. man moom bi tamit ci euh, desee vingt jours màggal Daaru Salaam daanaka la la la la bàyyi woon a jël ñaw xanaa ñi nga xam ne mënuñu mënuñoo ñàkkat yi nga xam ne bu ñëwee faaw da nga leen di ñooñu laa doon jël seen i ñëw mais clients yi moom Magal Daaru Salaam laa ko woon waaye fi ñu moom ñu ngi ci sant baax a baax moom par rapport ak tabaski daaw xam ne dañuy bàyyi ba de cinq jours ñuy teel indi seen i ñaw xam boobaa dañ lay sonal duñ am ñaw baax te yow bi doo ko bëggee noonu sax mais da ngay bëgg a liggéeyal ñëpp quoi. Ndiéna Couture waaw waa kër maam Cheikh Issa Diène. waaw ñoo ngi ci koom ñoo ngi ci koom waaw événement bi xam nga tabaski mu dafa xaw a gudd moo tax parce que dina jëriñ lu ëpp un mois daanaka bi ñu génnee ci côté gi ay quelques jours lañ tardé daal ci commencé sam ñoom dañoo bañ tardement. teeru góor lañ ñëw góor lañ ëpp la ñuy ñëw donte yëpp la ñuy ñëw nag waaye yàlla ñoo boole ñoo xam ne moom daanaka ñu ëpp ci ay kilifa la ñuy ñëwal te ñoom ñu wax dëgg yàlla man am naa ci tawfeex ndax moom sama kiraan am baax a baax am ñoo xam ne bu ñëwee seen fekk seen ñëw parewul maanaam danañ danañ danañ danañ waaye nag man mi nga maay jël seen ñaw danaa def lu ma mën ak lu ma mënul ba loolu du ma daal yenn saa yi nag moom moom tardement am mënut a ñàkk waaye nag moom yàlla na yàlla boole na ma ak ñoo xam ne mosuma ak ñoom benn jafe-jafe daal ñu ngi baax a baax parce que ñoom dañuy toog xaar ni suñu client la heure bu neexale yi ñëw loolu moo tax waaw saa bu ñëwee ñëw leen daal loolu a yokk moom daanaka nit ñi ku da leen ñawal li nga leen war a ñawal bu soobee yàlla yaakaar naa ne xuloo du si am waaw am na ñoo xam nag moom dañoo nekk ni di coow noo mën a def faaw nga ak ñoom ay sant yàlla rek courant moom wax dëgg yàlla xaw naa seer moom ndax euh, woyofal yi ñu daan wax wax dëgg yàlla kenn ku xam ne xaw naa metti lool waaye nag ñu ngi sant bu baax a baax xëy na yàlla yàlla dañu dana jëf tawfeex ci kanam incha allah bu fekkee ni client bu bees la moom boo jëlee ñëw mën naa ne tooñ waaye koo xam ne koo yàgg ñawal la war nga koo mën a bàyyi xel ndax da di weer yi day sori surtout ren weer dafa mel dafa xaw a sori lu bari bari mm-hmm. bu dee bàyyi woo xel say client rek mën nga am ak ñoom ay xeeti jafe-jafe waaye bu fekk yaa ngi bàyyi xel rek yooyu jafe suñu borom na la dimbali baax a baax ñu ngi ñëwal waa bitim réew ñu ngi ñëwal waa waa biir réew mi mm-hmm. waaw ngi si ñu ngi ñëw ñëpp instant bi ñu ngi ñëw robb évangé ñu ngi ñëw tay bâche yi waaw borode bi génn nii ñu ngi koy ñëw tamit borode léegi jël nañ ko tiise tamit jël nañ ko ren waaw ñëw léegi moom ñu ngi jéem a sàmmante war may dëkk bi rek ndax parce que sëñ bi moom li mu bëgg si dëkk bi loolu la ñuy def ndaxte am na yoo xamante ni moom boo koy ñëw sa place day mel ne yaa ngi teggi ndigal li quoi te comme que danoo nekk ci dëkk bi ah di taalibe danoo war a def loo xam ne day méngoog dëkk bi day ànd li sëñ bi bëgg daal lu métti dañuy ñëw ñëw yoo xam ne duñ ko fàntu duñ ko xóotal li sëñ bi bañ lépp daal duñ ko ci def waaw boo ñëwee yow client boo ñu naree imposé yéen ñu ñëw la ciy génne bani la léegi mën na la koo defal noo xam dina rafet te du am loolu ñawal la ko ñëw boo xam ne nii dana rafet te du am fànt lépp li sëñ bi tere daal du ci am waaw ndax parce taalibe noonu la war a doxee quoi. ñoo la nekk a baax ko sante ci dinañ a proposé ko def li xam moom la suñu bëgg. mais hmm. foo xam da bàyyi sa waa kër ñëwal client waaw loolu moo ci ëpp wax di yàlla ndax man samay waa kër ñëwalu ma leen dañ bëgg bàyyi ba paase rek ma ñëwal leen allah